asalaamaaleykum sama wa tim tim sama Adja Traiteur Nuy na len, ziar na len. j'espère que yéen ngi ci jàmm bu baax baax di len wax ni on est présent sur tous les réseaux sociaux su ngeen soxlaa jokkoo ak ñun rek da ngeen ñu envoyer message ñu dal di len di tontu di remercier suñu ay partenaires le groupe agroalimentaire Seifa depuis le début ñu ñi accompagne ak seen ay produits yu baax tey nag bisaab bu wex la présente di indil présenter len parce que mën nañ ko def cocktail ak suñu recette du jour muy jus de benqal instant bi benqal bëri na ci marché bi te jus am noonu la neexee pour ñu ko xamut te dama leen indi recette bi pour ñu ko xam moom dama koy bamtu comme ni ngeen ko gisee nii un kilo bi moo nekk nii dama ko raxasoon ba mu set teg ko ci indi bi ba mu siit moo tax mu mel nii gis ngeen un kilo de benq neex na naturel na ba pare dafa bëri vitamine C c'est très bon bu jël ko au petit déjeuner comme accompagnant gis ngeen lii poudre d'ananas la man maa nëbb ni marque bi parce que la plupart du temps dañ naan ma bàyyi de publicité gratuite euh, fleur d'oranger da ci dem ak sun euh, tropical bi donc trois ingrédients yi laa ci def ak sucre la dama jël dal dikoy def ci cin bi dañ koy baxal jus de benkal so koy def da ngay baxal benkal bi gis ngeen mi ngi ni di bax mu jël sama fouet yëngal ko pour mu mën a tas bu baax comme ça ndox bu tàng bi mën a baax ci biir ingrédient bi mu mën a yebbi bu baax donc fouetté naa ko tuuti ba mu commencé xolleeku ma daal di bàyyi mu bax nank gis ngeen ma jëlaat sama fouetté daal di toujours mu ndox bi commencé jaune c'est parce que bi mu ngi commencé ñoox mi ngi yebbi bu baax ñam bi mi ngi génn donc ngeen daal di koy yëngal laa teggi ko ci fourneau bi wàññi ndox bi dama koy yëngal ba mu normal donc mélangé leen ba mu yebbi di leen wax bu leen fàtte abonné wu compte bi pour plus de vidéos dina ma neex et aussi ça va me permettre ngeen di euh, aimer sama ay vidéos di ma encourager dina tax aussi algorithme YouTube di gaaw di recommander sama chaîne ak samay recettes donc là, jàmb ko ba dal dikoy koy def ko sama siwo 5 litres soti na sama poudre tanana amna ci marché bi gis ngeen benn sachet rek laa ci def parce que bëgguma aspect wu euh, ananas bi dominé de trop ananas parce que ananas la ñuy gën a xam donc laa ma daal di def fleur d'orange à volonté ku bëgg lu fort ku bëgg lu oyof donc man lu yam rek laa def restant bouteille bi li desoon sucre aussi lu ngeen gisee joxe ma mesure parce que à volonté la léegi sucre moom ñi dañ ciy dem nànk moo man aussi nank la ci dem gis ngeen lu yam rek la def suma ma ñamee après su manqué ma daal di dolli moo bëgguma joxe mesure exact parce que légui ñep légui sucre à volonté la yaay xol nak bëng lu saf wala bëggoo lu saf ñu daal di mélanger daal jël suñu léegi sunquick tropical bi kumu neex nga jël quick anana wala nga jël quick orange mais man tropical bi goût boobu moma ci dàqal daal di ciy sotti léegi nag comme yëngal naa sama ingrédient yëpp damay ñëwaat segg pour une dernière fois njëkkoon naa segg mais damay seggaat pour une dernière fois pour su fekkee am na élément yi nekk ci sucre bi wala yooyu mu daal di setaat donc mu daal di koy segg ak tamit bu sew ba mu set wecc nekk na jus bu neex bu raar mais instant bi ñu ci période benkal benkal dafa bëri le pot est à 300 francs donc benn 1 kilo bi mun nga ci am 5 litres de jus donc ñu faire ay jus histoire de changer un peu comme tout le temps en général nous lañuy ñuy bisap avec ak jinjeer tay ma indi len benkal neex aussi boko défé cocktail ak Dindier, c'est trop bon man bima koy un dama mon jus de Dindier bu ne ci kër gi donc dama ko def cocktail mais c'est très bon donc la yokkaat na ci ndox bi au final ba bouteille je me suis retrouvée avec 5 litres de jus Après, bi après dama ci avec ndox litres mu jus. au finish mi ngi avec suñu jus de benqal pare neex na naturel na ba paré guubu bu saf dal donc ñuko xamul ma leen koy recommander ñuko xam ngeen joxe astuce de plus ci commentaire yi sama Adja Traiteur mi ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox rendez-vous bientôt pour yeneen recette bu ngeen amé recette yu ngeen bëgg aussi def leen ko ci commentaire ñu dal di koy réaliser jaa ngeen def bisous